di sant Serigne Touba Khadim Rasoul di ñaanal Serigne Mountakha ibnu Serigne Bassirou mu yàgg fi lool cànd ak wér amiin waay di ñaanal suñu Serigne yaakaar suñu wasila hmm. di Serigne Khadim Gaye Lo ibnu Serigne Moustapha Lo Modou moo hmm. moom it ñu yàgg fi lool cànd ak wér amiin amiin moom lañ koy ñaanalee bépp kilifa boo xam ne rek hmm. yaa ngi ci yoon bi amaat mbégte bu baax a baax a baax di nuyu tey siyaar sunu sunu sunu jëwriñ koo xam ni mbokk taalib yëpp buñ la gisee rek dañoo bëgg ndax yàlla ndax li nga wax dëgg rek lépp day benn ñuy sëriñ Gàmba Mesere ñu toog mhm. doon koo xam ne dañ koy bëggee fu ñu toll mhm. tey tamit ñu xam bu baax bi ak sëriñ Xadim loo koy mhm. def mu doon loo xam ne ñun ñëpp dara umbuñu ci ñu ngi lay char bu baax te di la dalal fii nga xam ni dañ fee fekk ni suñu mbokkum taalibi ñu sëriñ Bekaay Mbuub ci buntu bi nga xam ne tey ki ci jaar mooy sëriñ Seydina Ndiaye mii mhm. moom nga xam ne fii la féete mhm. ñu doon jóoruñ ji ànd ak mbokki taalibe yëpp ci liggéey bi mhm. ñoo ci tey ci guddi àjjuma bi am ndëkk bu baax nag buñ nga fi gisee mhm. te xam ni ku fi toog tey di nga dolli ko ci te li nga wax léegi rek moo ko nekk olof yi ñu doon jàng mhm. Serigne Khadim Lo moo ko bind ci Serigne Touba macha Allah di ci di ci tàgg Serigne bi mhm. way na ko ci langue bu ne lay way na ko ci arab way na ko ci wolof waaye li nga wax léegi rek moo ci nekk olof yi moom mooy jàngale Serigne bi te loolu moom yaakaar naa ku ci nekk rek loolooy dugg sa xol kon ñu ngi santaat bu baax bu ko defee dañu guddal lay jox kàddu gi rek ah, nga nga diggal ñun ci li nga ñu indil tey ah, ci ci bépp fànn rek mbokk taalibe yi ñu ngi toog di la xaar بوك جولدي دي بوك طالبي نوغي لين دي نوي دي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته دي لين سياره بو باخ تي جتاي بو سيل بي نو بوك اك يين تي غودي غو ماغ غي نو نيك مي غودي الجمعه دي لين سياره بو باخ دي جيتال تي سوني نيان اك سوني زيار شيخ محمد المنتقى الخليفه نيان يالا سونو بروم ياغال كو في تي ويرال كو با لي مو نالا الاسلام ييب ماغال andok ak mbollem jabotou Serigne Touba gi ak kilifa diine yi ak mbollem jullit yi ak taalibe yi euh, di nuyu jëwlin yi nga xam ñomit ñom lañu fekk ci jotaay bi léegi muy ahlu khasaid yi di jabotou Serigne Khadim Lo Gaidel, mi nga xamne sunu sering la sunu soppe la sunu xarit la mu nek référence wa nopi di gidd bo xamne wamat na ndaw ñu bari jëmi ci yoonu mustaqim kon mu dalil het nekk guide spirituel boo xam ne tourné nañu bari man sama soppe la sama sama xarit la sama sëriñ la nit ku woyof la nag ku baax koo xam ne ku modeste la am na xam ci moom rek bu wax diw dafa ñu ne kum defar ñii toog nii rek di yëkkati xasaayid yi doy na tey ñu ne ci keppaaru ku ñu jóge ñu ne Sëriñ Xaadim Lo Gaydel loolu nag li muy tegtale mooy ak man a defaram ak mën a yaram ci tërbiya goo xam ne ñaar lay doon bil xaal aw bil maqaal benn ay waxam dana jubbanti ab taalibe dana yar ab taalibe dana ko defar waaye jëmmam it boo ko xoolee saq siyam da ngay gis ne ak bi da cay màndargawu ak ko doxinam mu doon ko jeex ci sëñ Touba ay mbindam feeñ na ci bu baax a baax loolu nag ñun sant nañ ci yàlla sant nañ ci yàlla ci yu bari waaye sopp gi ñu ko sopp nag ak sopp gi mënu sopp te lépp di benn tool bi waral ko fu ma ko nuyoo li muy jëkk a wax rek mooy kii de sama soppe la bis bi ma jëkkee gis dana sama soppe bu ma gisu doon moo nekk nii muy ku baax loolu nag waaye fam rek moo ko waral ak baaxam moo ko waral euh, bi ñu mujjee jokkoo daf ma wax ne ma yow moom lu may wax yow maa la koy waxal sama bopp waaw loolu bég nañ si lool ku baax la kon noo ngi leen di ñaanal bu dul woon ak yow ñu woddoo ngeer di yey ñax di boot tubaab waa léegi nag am ngeer ak nim ñagase <laughs> ko ko woddoo ba noppi nag di yëyum ñax teg ci nag léegi fooy jëlee kattan nga boole kook takk ngeer mi dana la day tas kon yow la ngay def xam nga lu mu doon ba noppi yëyum ngeer ñàkk kattan ba noppi di booti tubaab nag waa suñu xalim lu waaw góor jërëjëf bu dul woon ak yow ñu woddoom ngeer di yëy ñax du boot tubaab yow gërëm naa la man cëm si ne yaa tax ma tedd tey amoo kem te doo am kem. yow amoo kem te doo am kem. kenn nit du am morom. te kenn nit doo ba dëgg la. barke borom Touba. ni mbëri yi ku leen feesal. ni mbëri yi ku leen feesal. Hmm. dëgg la. mbërëm yii ah. ah Cheikh Rafal ah. ah ah ah Sidi Bilaay mi jaaxal gaa ñi xam ne moom la ñuy werantee fo deg way dafa ko Seex Rafaa la ko jaaxal ndax ñàkk julli yalla ben charte bobu rek la joxe ci diina ñak julli joxe na yu bari de cierno yu Faati 83 ans yu manki 80 ans yu manti ñaar ñeenti weer la dund ñaar yon la ma sa tim ba ma ndox fay nak ko Cheikh Massamba Cheikh ibrahim Diop ne bu toonoon sëñ Tuubaa sëñ Massamba ay gën Cheikh daru Assane ndjay seigne dam abdourahman Lo kamil Alxuraan ñaar rak téeméer rak la borom sam dan nafila kon ki kum don ay kum doon say sab sang ah ku yeewu mën a ñëw kon yi seen xaalis ñoom di wax la ñu war loolu am solo la danaa ko jël mooy ngeer mi moo ñor la bu du loon ak yow ah, bu du loon ak yow dañuy woddoom ngeer di yëy ñax di booti tubaab lé maanaam dooyee di gi ci woddoom ngeer yëyum ñax gën ko metti nag kon sañes naa wax ne lu am sëñ bi sëñ xaadim loo jërëjëf loolu mooy loolu mooy dayob li ñuy tuddee wane ne sëñ bi ca suufa ca ca fa ak toroxte yam ak fitna ak coona la ñu sëñ Tuubaa jële ndax am ngeer sax boo ko rabbee ba mu doonum sàq ñàkk sàqum ngeer ni muy tale rek waaye ngeerum kese nga waddoo lekkum ñax ñii di lekk sal guuf ñii nekkal mel ne hmm? ba noppi nag bëgg a bootu tubaab teg léegi yow solo yéeral léegi ko tey boote ah. ku dox sa digg lii war nga foo toll nan ko jërëjëf foo ñu toll war nañ ko naan jëf fi may daaneele maa ngi leen koy wax di ko wax sama bopp mooy nan dëjërle dëjërle ci sëñ bi maa ngi koy waxaat murit daal day dëjërle booy déglu ko waxut sëñ bi yoral sa kaasu café bu tàng di ko déglu nee naa leen bul passé parce que doo xam la muy wax da nga naan tekk di ko déglu ba mu jël ci taag yitteem wogganti ko ba wax ba yeggal nga xëcc café gi wax bu dëgër nako ko gëssam sa bop na jëre sëñ Tuubaa moo mo ne loolu jall na doko dégg ah, ki la tee woddoom ngër di yeeyu ñax di boti tubaab koku kën du ko jëndee <laughs> ku la lu dara kon ma ngi leen di sant sëñ Bekkaay mi na ngeen ko ñaanal bu baax euh guddina té yi bari na mas na ma wax loolu ci benn dëkk bu nekk fele ci boori Somone la xawma may wax ci sëñ khadim wax dëgg yalla xam nga yoon wi dafa bari ay ay ay ay ay catégorie mm. général yeeg officier yeeg commando yeeg mais gëb yi sama classe yi nga xam ne gëb yi lañ a jóg ñoom daanaka ñooy ruube yëf waaye ñi mus dara xam nañ ñoom ni yëf yi dem kon ku am ku lay womat ci jamono bii nu toll li bëgg a dëwyee ndaw ñi ku ci yàlla may kilifa gu mel ni seen Xaadim na ko gën a fonk te man amna liberté ci wax ci kum mën a doon ndax Seigne Touba mi dimbalé mom man seetaanuma te boolewuma kenn bëtelewuma kenn limi def man momako ko defalal kenn defaluma dara man lu am daam kon man waxuma ngir nan ki bu suba nangam déedéet man lu nit bëgg ma jox Seigne Touba jox na ma te ko ci kenn ba kenn defuma nii ku def ni def ko sa ñooñ Seigne Touba ma ni def waaye boo ñëwee ci tool gis ay général soldats yi sax dañuy maaj boo gisee ku la gën a nekk seef da ngay tuuj maajal ko mooy lii may def ndax ku mel ni sëñ Xaadim Lo wax ko ci dayoom ak nam dafa rafet ndax am na ñuy dajalew ndaw waxuma la man man man man man man léegi-léeg ma gis ci ci te internet bi ñuy fooyee bëgg a wax inna lillahi wa inna ilayhi mënuñu koog yooyu yooyu yi muy yi muy tegtale rek mooy ñi ngi sànq ndaw ñi te amuñu gidd bu leen war a wommat tey nag ku gis ku mel ni sëñ Xaadim Lo mu mën a fekk ndaw loo xam ne tey gars yi nga xam ne wax naa ne ñii ca terrain ba lañ leen jëlee woon ñu nekkoon ay man a football nawetaan ñi ay ailier gauche ñi ailier droit ñi doon yoon ay milieu tere latéral gauche yi latéral droit yi ah ñii mënoon na ne ci mbappat mi ñi dàqoon na toj fuural yi nga jëlee leen fa ñu boole kook jàng ba nekk ay boroomi diplôme nga tàggat leen ba bu ñuy jàng xasaay di nga jàpp ne ca daara ja lañ bàyyi koo defar seen jikko ci teggin ah loolu ba noppi di defar ay nit ñoo xam ne da ngay defar nit en distance ne fu sori di ko defar ba tàggat ko ku def lu mel noonu dañ ko war a waxtaane te loolu mooy li sëñ Xaadim def hmm? yéen ñi kenn ku ci nekk fu mu dem tey ñu ne kuy sa kilifa ñu ne sëñ Xaadim loo mais kersa lu am ci yoonu murit kersa lu am ci l'islam hmm? waaye koo xam ne tey boo fu toogoon benn kaay julli xamoo looy wax xasida buñ ne la jàngal doo xam looy wax ah? ngay joxe ngant naan ma ab taalibe rek laa joxal gaa yi fekk la nga xamul dara ne bari na ngant yoo xam ne ses tam la ci gaa yi dugal da nga dux ah a ma ko man ab donga rek laa fekk xamul dara yëpp affaire yi nante la dong la kon nag sëñ Xaadim mat naa ñaanal ñan la sant naa ko jàpp naa ko bëgg naa ko te ya loolu wax naa ko ay yoon te gisante wu waaw wax naa ko ay yoon te loolu mooy li ma gëm loolu mooy li ma dund sama diggante moom waaw yàlla na ko yàlla gën a taxaw ku yàlla dimbale daal ba am ku la jox maamam bokkoon na ci ñi demoon gànnaar fi ne ni ñu demee gànnaar ci yoon wi jam nañ ko xeej ba mu jàll ci biti sëñ Modou Sa jam nañ ko xeej ba mu jàll waaye xoolal seenu teel bi dafa wax ne taxaw di ko rocc rek diggante boobu du ndigal ci moom maanaam rocc taxaw di ko rocc gi rek xam ne sëñ bi ko ci ko ci bu mu diggee sëñ bi ko ci defal yim ko ci doon defal ñooñu seen pas-pas ñooñu boo amee set bu mel nii ah, sa maam ba gànnaar bul toon dara la sëñ Modou Issa dem ba gànnaar rek ma bokk ak sëñ ma sàmba ak dara waaye inna la siina ila sarsara qad qasadu siyaarati faaraqu daari aw zaara dañ leen a